monsieur Sy Madani Sy ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. di la dalal yow ngay secretaire général bu syndicat national liggéeykatu euh, Netoama euh, ñuy xamle ne euh, dinañu amal fii ci Sénégal benn société bi nga xam ne moom mooy yëngu ci li lépp lu jëm ci déchet ngir nag couvrir territoire bi tey jii lan moo ci seen xalaat. waaw jërëjëf ci. opportunité bi ngeen ñu jox pour ñu wax suñu xalaat ci wàllu société bu bees di nar a wuutu UCG. Mm. parce que ñun ñuy wax ak yow ñun UCG mooy sunu njaatige. la sénégalaise de la gestion des déchets bi ñu ko déggee ci presse bi lañ ko mm-hmm. ma yaakaar ni damay faral wax tout le temps def mbir pour man te boole ci yaa def contre man. Mm-hmm. et ñun ci lañ bokk parce que mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. c' bien ñoo ñu jël décision yu mel noonu parce que Dakar seulement n' Sénégal parce que gestion des déchets tey UCG boo seetloo depuis un certain temps ñëpp gis nañu Dakar commencé na am benn xarkanam bu bees mm. bi coordonnateur bu bees bi ñuy muy Mass Thiam ci wàllu implantation mobilier urbain bi muy ci bac parce que nit ñi dañoon kaas ne amuñu fu ñu def bu ñu bu ñu def seen i mbalit mm-hmm. donc bu ñu gisee tey mobilier urbain bi partout à Dakar ak ci yenn capitale régionale ak ci banlieue bi ñu gis aussi ce qu'on appelle les PRN muy les points de regroupement normalisés parce que da doon gis ay dépôts sauvages partout donc PRN yooyu mun naa ne ñëw na permettre tey au moins population yi ñu bañ di këpp mbali bi ci mbedd mi. Mhm. donc beneen bi aussi ñu gis ni société nationale boobu dafa dafa dafa permetre tey UCG mu change statut parce que actuellement fi may wax yow. Mhm. day mel ni UCG dafa judd te amul kayitu juddu. dafa amul amul en cadre juridique légal bu ko permettre tey mu am les moyens de sa politique malgré effort yi nga xam ne ni UCG mi ngi koy def pour dëkk bi set. donc décision yu mel noonu su ko état Sénégal jëlee ñun dañ koy rafetlu waaye nag. ñun dañ leen wax ne leen ni lépp lu ñu mënti def. Mhm. te ña xam ne ñooy tonni mbalit mi gisuñu seen bopp ci liggéey bi gestion taf yëngal lay doon parce que ñun bëgguñu ay bëgguñu ay effet d'annonce bëgguñu mu nekk ay slogan bëgguñu li bi daloon Sopro Sen du jamonoy euh, gouvernement Ablaye Wade mhm. mu dalaat cette nouvelle société comme nag ñun xamaguñu les tenants et les aboutissants boole wuñu ci gum pour l'instant parce que dañ ko dégg rek ci presse donc suñ ko waxee ñun dinañ leen déglu waaye comme ñun dañoo jiitee ay liggéeykat te ñu war a seen àq ak seen yelleef. Mhm. parce que liggéeykat boo gis yokk yokk lu bëgg liggéeykat yi bëgguñu ñu salfaañe seen àq ak seen yelleef ou bien ñu laal ci lu toll ni tarfatal ay nii looloo tax nag ñun ñu ne nañu yëglu pour que ñu wax leen ne en tout cas lépp lu état bi def ci pour renforcer UCG ci wàllu statut dañ koy rafetlu waaye nañu bàyyi xel ci ñi nga xam ne ni ñoo koy tonni ñi ciy liggéey parce que ñi ciy liggéey mun naa ne ñoom ñooy le maillon le plus essentiel. boolew ñu leen ci euh, waaye tey jii lan ngeen di xaarandi ci société bi. mais ñun ni ñuy xaar ci société bi mooy mu régler dysfonctionnement yi am ci wàllu liggéeykat yi ci wàllu seen ax ak seen yelleef. bi ci njëkk. Mm-hmm. muy ci wàllu. convention collective des travailleurs notamment bi nga xam ne mooy l'une des meilleures conventions du collectif buy wax ci wàllu statut yu travailleur buy wax ci wàllu ak ak yelleef mais buy wax ci wàllu plan de carrière buy wax ci wàllu seeni yokk-yokk convention boobu ñu ngi depuis deux mille quinze mais ba fi may wax ak yow ba tey mënuñu ko parce que UCG dafa wax ni mënu ko appliquer parce que cadre juridique bi mu nekkee absence de cadre juridique loolu pour ñun euh, perte la. Mhm. parce que du ñu liggéey lu mel noonu pendant des années état bi Sénégal liggéey dafa mel ni état bi voté ay lois mooy transgresser les lois te liggéeykat boo gis yokk yokk la bëgg muy benn muy ci wàllu liggéeykat yi ñaareel bi aussi. Mhm. muy que dañoo war a impliquer dans les prise de décision impliquant sunu sunu secteur parce que wax naa ko ne sooy def mbir pour man te boole woo ma ci yaa ngi contre man. Mhm. donc ñun ñi nga xam ne ni ñoo ciy liggéey war nañoo gis suñu bopp bu baax ci société boobu parce que du Dakar kese mais day dokk benn genre maya benn maillage national lay doon. Mhm. ba pare aussi mu nekk actuellement ni le seul secteur pourvoyeur d' emploi dina wut dina amaat ay emploi yu bees yu yu yu ñu créé te création d' emploi boobu. dafay permettre tey collectivité teritoriale parce que ñëpp xam nañu nettoiement ci wàllu mbalit mhm. compétence transférée la ci collectivité territoriale yi mais collectivité territoriale dañuy wax ne ñoom tout le temps que ni état du Sénégal dafa décentraliser problème yi au détriment des moyens financiers léegi nag bu ñu ba war a créer société bu mel noonu dafay am benn genre synergie d' ensemble lay doon synergie d' action muy état du Sénégal muy collectivité territoriale yi muy UCG muy liggéeykat yi muy concessionnaire yi muy population yi ñu pencoo ko ñu am benn vision futuriste parce que du moment que Sénégal zéro déchet la ñuy wax mais Sénégal zéro déchet yemul Dakar Sénégal la ñu wax Mhm. Sénégal zéro déchet dafa war a benn maillage bo xam ne buy permettre ay population yi ak état bi lii ñu bëgg a créer muy ci wàllu infrastructure d'abord parce que mbalit bi duñ ko lekk duñ ko naan duñ ko dugal ci suñuy poche foog ñu am ay jumtukaay ay infrastructures yuy répondre aux normes environnementales il faut des moyens financiers il faut des moyens matériels mais aussi il faut des moyens humains. Mm-hmm. ñun foofu la ñuy xaar pour que ñu renforcer ko pour que la ñu daloon ci soprosen moom bu bañ ñu dal ci société bu bees bi. tey donte UCG amul euh, cadre juridique bi nga xam ne mooy tax ba lépp li ngeen xaatimoon seen diggante euh, mu matal ko mais euh, du ñàkk xam naa am na yi nga xam ne jot nañ ko saafara ci seen i ak plateforme. waaw su li ci li déjà ñun li ñuy rafetlu rek mooy que. gën ngeen dégg remous gëj ngeen ay grève ci ci nettoiement bi depuis

tey bu ñu jëlee la prime de lait def ko dix sept mille cinq cent pour deux mille cinq cent agent loolu yokkute la. ba pare aussi am na lu ñuy tuddee le renforcement di dialogue social. parce que centrale syndicale yi dañ fi signé woon benn pacte de stabilité et d' pour que ñuy tegandoo di dóorandoo muy que lépp loo am rek ñu war ko mun a pencoo loolu tamit ak kii la ci li nga xam ne ni bokk na ci suñuy plateforme revendicative waaye nag liggéeykat boo gis yokk yokk la bëgg tey fii ñu toll tey am nañu ay travailleurs yoo xam ne depuis deux mille quinze deux mille seize ñu ngi fii kenn régularisé wu leen ñooñu ay journaliers lañu ils sont presque mille et quelques journaliers beneen bi aussi am nañ fi ay VP ce qu'on appelle les volontaires de la propreté ñooñu tamit foog ñu jéem leen a régulariser donc soo xoolee li mu tënk dafa li mu li mu li mu li mu euh, jël dafay dafa yaatu de telle sorte que mm-hmm. mbir mi ñu ko caaxaane waruñoo rek toog ci télé rek def ay effet d'annonce ni rek wax ko gars yi ne way dinañ am société mais société aussi tamit foog ñu xam les tenants et les aboutissants lan mooy ci paaru liggéeykat yi lan mooy ci cëru liggéeykat yi ak assu lan lañ ñu lan mooy suñuy attente ci biir loolu donc looloo tax ñu suñu wàll boobu ñu ne foog ñu boole ñu ci xam ni mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. mbas maa ngi fi ba tey mais gënoon na taax ci première vague bi tey ji ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, liggéey ci tonni mbalit bi nan lañ dundee mbas bi. waa ni ñu dundee mbas bi de mun naa ne ñun yàlla rek moo ñuy muccal yàlla kese moo ñuy muccal parce que ñooy agent yi gën a exposé ci wàllu mbas mi. Mm-hmm. parce que ñun ñoo nekk en contact permanent ak salte yi ñoo nekk contact permanent ak bactéries yi ñoo nekk contact permanent ak façon musiba bu ne. te te ñu ngi liggéey guddi di liggéey bëccëg sans interruption tey foo tourné ci Ndakaar da nga gis travailleur UCG ñooñu gàcce ngalaama liggéeykat yooyu donc euh, beneen bi aussi gis nañ ne bi mbas mi ñëwee coordonnateur national jël na ay dispositions ci wàllu EPI muy les équipements de protection individuelle mhm. muy ci wàllu masque muy ci wàllu gant muy ci wàllu tenue muy ci wàllu matériel bi nga xam ne mooy jumtukaay mais du doy beneen bi aussi gis nañ président dafa alloué woon Euh, fonds Covid de mille milliards. Mm-hmm. ñu ne déeta mu jël plus de soixante et quelques milliards jox ko personnel soignant te personnel soignant boobu ñëpp gis nañu liggéey bu mucc ay bi nga xam ne def nañ ko. c' est bien parce que ñoom ñooy ñoom boole nañ leen la première force de défense et de sécurité muy armée bi muy police bi muy gendarmerie muy douane muy muy le corps enseignant muy le personnel soignant mais ñi jël mbali mi nag xanaa bokkuñu ci corps de défense bi mu liggéeykat yi mooy que doo dégg mukk fu président de la République cité les forces de défense et de sécurité tout dafa les travailleurs nettoiement te bu dul ñun tey dama ne lambaay dina ñaaw te travailleurs yooyu tey ils méritent soutien respect et considération donc fonds Covid boobu ci la ñu bokk dañ cee war a gis suñu bopp pour que ñu gën a yokk sunu àq ak suñu yelleef. bu yàggul monsieur Sy déggoon nañ leen ngeen ne da ngeen di amal doxu ñaxtu euh, le neuf gi ñu wees mujjee woon na am. waaw marche boobu mujj am mu doon macha allah marche boo xam ne ni c'est un signal fort bu ñu lancé ci autorités yi. Mm-hmm. parce que collectif travailleurs ex-SIAS ak Ama Sénégal ñu lëkkaloo ñu ne nañ xeexandoo benn bi tegandoo dóorandoo. Mm-hmm. parce que c'est dossier boobu justement fu mu toll. dossier boobu fi may waxee mi ngi nelaw. mi ngi nelaw parce que président de la République en deux mille dix-neuf ci élection présidentielle yi bi mu demee Guédiawaye. Mm-hmm. dafa taxaw solennellement mu ne boo ma falaatee dinaa régler définitivement ñaari at a ngi dara amu ci te olof Njaay nee na. Mhm. dige bor la waaye ñaa ko def tas yaakaar la te tas yaakaar baaxul. looloo tax na ñu ne nañu yëngu yëngal def nañ grève de la faim kenn dégguñu façon mu lu ne def nañ ko te entre temps on a occasionné plus de deux cent décès ñii génn nañ àdduna yal na leen yàlla yërëm ñii seeni jabar fay na ñii seeni doom dàq nañ leen école. ñii dàq nañ leen seen kër yi ñu ñu dëkkoon tey ils dorment à la belle étoile ñenn ñi ay yelwaankat lañ ils sont devenus des mendiants ñii ñi ngi feebar tëdd seen kër ñenn ñi ils sont devenus des monstres waaye loolu yëpp pour service rendu à la nation sénégalaise travailleurs yi ils méritent un autre sort pas di liggéey loo ay yaakaar ne ñun ay mbalit lañ damay naan tout le temps que ñun ci mbalit mi lañ liggéey waaye duñu ay mbalit te àq baaxul je pense que aujourd'hui président de la république war na revenir à de meilleurs sentiments mhm. parce que priorité bi mooy fexe ba les sociétés liquidées ñu régler seen situation ñu ngi jëm première mai ce sont toujours les mêmes doléances ñoo fi def donc marche boobu ñu def nii signal fort la pour que état bi jël ay responsabilités xam ni lay raam ca ñag ba la jëm en tout cas ñun du ñu du ñu bàyyi dara mu sedd danañ ko xeex topp ko ngir ñi nga xam ne ne génn nañ àdduna ñi nga xam ne seen kër tas na ou ñi nga xam ne ñu ngi topp mënuñ amuñu ku leen waxal te ñun ñoo leen war a waxal. amoon na tamit leneen euh, lu ñu déggoon bu yàggul muy projet euh, jëlee mbëbës fa mu ne yóbbu ko feneen euh, wala ñu defaat ko ñu ci toll. waaw projet boobu depuis ancien ministre Abdou Karim Fofana bi mu fi jugee mm. parce que amoon na ay dispositions yu ñu jëloon comme nag état continuité la. donc le nouveau ministre aussi mi ngi ciy jéego yooyu parce que disposition yi ñu jëloon ca décharge ba mooy que jamono yooyu dañoo tawoon am benn association bu mag bu tudd Mbëbës dégage commencé manifeste ne mbalitu Dakar na yem Dakar mbalitu Kaolack na yem Kaolack mbalitu Thiès na yem Thiès mbalitu Malika na yem Malika mais pas tey ñuy jël mbalit mi di ko andiwaat Mbëbës te Mbëbës depuis 1968 la Mbëbës sey la dafa mel ni benn genre bomb écologique la. Mm-hmm. parce que dafa nekk dans une zone marécageuse Mbeubeuss am na plus de mille huit cent liggéeykat yu fa nekk ñuy nekk ay récupérateur ba pare aussi Mbeubeuss dafa nekk dans une zone li ñuy tuddee poreuse amul clôture fu ay neex dugg donc dafa am problème insécurité donc bi autorités yi demee foofu ñu jël ay dispositions dis dispositions yi ñu njëkk a jël mooy o lieu que ñuy wax délocalisation léegi dañoo ne dañ koy restructurer maanaam ña fa nekk dañ leen organiser. foofu dañu fa def ay usines de traitement de telle sorte que tey dootul nekkati un dépotoir à ciel ouvert mais dina nekk loo xam ne dina méngoo ak jamono léegi na ci loolu ñu ne dinañu danañ fa def benn poste de police pour affaire sécurité bi ñaareel bi aussi ñu ne danañ ko clôturer ñetteel bi ñu ne danañ fa def dispensaire ñeenteel bi ñu ne danañ fa interdire le travail des enfants maanaam xale yi nga xam ne dañuy dugg ci biir déjà dafa liggéey. Mhm. danañ leen interdire ñuy liggéey foofu. ñett ñeent juróomeel bi ñu ne dinañu interdire ña nga xam ne ni mooy souvent da ngay dégg oto mbalit buy dugg ci biir yi euh, tuuri mbalit suy génn àndaale mbalit ah. wala aussi ña nga xam ne ni ñooy taal pneu yi wala di fa taal du n'importe quoi ba saxaar soosu dafa dem ba dafa créer ay gàllankoor muy population yi dëkk Kër Massar ñi dëkk Yëmbal ñi dëkk Malika ñi dëkk Buun ñooñu c'est des populations affectées mm-hmm. donc état bi nag comme disposition yooyu la jël disposition yooyu ñun ñu ngi koy topp n serait au moins pour que centre intégré de valorisation des déchets yi nga xam ne ni moom la état bi actuellement di créer au niveau des capitales régionales mm-hmm. parce que ñun mënuñu concevoir une capitale comme Dakar amul infrastructure buy répondre aux normes environnementales loolu c'est une hérésie donc je pense que comme état continuité la avec le projet bu tudd Promojet ñoom ñi ngi ci ne serait-ce que au moins que financement yaa ngi fi pour que au moins ñu continuer ko pour xam ni gestion des ordures gestion inclusive la participative et globale. Mmh. monsieur Sy tey bu ñu demee ba ne dañuy restructurer Mbëbës c'est parce que fañ ko bëggoon yóbbu ña fa dëkk ñoo bañ euh, donc tey ak société bu bees bi nga xam ne dafa bëgg a étendre li di gestion des déchets euh, ci gox-goxaat yi ndax euh, problème bii du am mooy fi nga xam ne foofu la ñuy yóbbu li di mi. waa xam nga kenn bëggul dund infrastructure buy buy buy buy gérer muy muy centre technique muy décharge muy déchetterie parce que population yi bëgguñu dund ma mais mais état moo am pouvoir régalien ala kulli alin mbalit mi foog mu ko def mbalit mi duñ ko lekk duñ ko naan duñ ko dugal ci suñuy poche donc foog ñu am ay site dédié yoo xam ne ne dañ ko fa war la preuve gis nga jamono yi lay passé au niveau de Diass mhm. état du Sénégal dafa waroon def benn centre d'enfouissement technique def fa plus de huit milliards ñu xëy population yi ne déet bëggatuñu dëkk dund ak moom mhm. donc loolu tamit war na permetre état bi tamit jël ay responsabilités am xam ni état warul reculer devant ses responsabilités parce que day toll foo xam ne ni ñun en tant que liggéeykat bu fekkee ne état mi ngi reculer devant ses responsabilités kon fan lañ jëm donc je pense que société nationale bii ñuy créer jël na en compte aspect yooyu yëpp muy ci wàllu capital humain muy ci wàllu moyen financier muy ci wàllu moyen matériel muy ci wàllu infrastructure parce que loolu tamit bailleur de fonds yi bokk na ci li gën a tax tey ku mel ni Promojet ci ay financement yëpp ci loolu la mm. pour que au moins ñu am ay infrastructures yi répondre aux normes environnementales mbali mi ñu bañ ko di këppati en plein air au mois ñu am ay usines de recyclage ñu am ay usines de traitement yuy permettre tey au moins ñu war a mun a gérer suñu suñu mbalit en amont en aval mais malheureusement boo xoolee mbalit bi ni ñu ko gérer ni valoriser wuñ ko parce que tey population yi nga xam ne ñoom ñooy euh, créer mbalit mi ñoom ñooy euh, dégrader le cadre de tey amul lu ñuy tuddee un tri sélectif mbalit mi xàmme wuñu lan mooy ordures ménagères luy ordures non ménagères chimique biochimique gravat solide solide liquide lépp la ñuy mélanger tey nag il faut une culture environnementale buy permettre état bi ak population yi ñu respecter la nga xam ne moom la ñu voté parce que on a l' impression que ñooy loi yi ñooy transgresser les lois parce que mënuñu concevoir mu am la code de l' environnement mu am le code de l'hygiène mu am le code des collectivités territoriales te mënuñu fexe ba tey sàmmonteeg ak ak yelleef ba fexe ba gérer le cadre de vie c' est parce que quelque part dafa mel ni am na donc ñun ñu yaakaar ne en tout cas société bu bees bi di ñaan yàlla en tout cas yàlla doon li ci sénégalais yi mais aussi yàlla na doon li gën ci liggéeykat yi parce que liggéeykat boo gis yokku yokku la bëgg. Mm-hmm. Madani Sy ñu lay jaajëfal bu baax a baax. voilà man maa ngi leen di leen sant.